fetul ci am réew surtout réew mu mel ni ñun te ñu ngi waaja dalal ay gan loolu ñu dénk kaaraange gi ñu gën cee jóg waaye comme ni ko waxee rek doo xam ndax wàllu kaaraange doo xam wàllu lan la ndax de yéen si sa biir kër sax mën na la faa dal xam nga kenn ni rey na bàyyam ko doon ni alkaati waroon xanaa alkaati du ñu taxaw ci biir kër gi di xool nit ñi pour te dire loolu dafa doy waar nanu seetaat suñu réew ah loolu dina tax réew mi gën a mën a jëm kanam ah sunu sunu sunu yoon nekku ci maawo sunu yoon nekku ci sunu yoon nekk ci ah, ñu ñëw ci benn événement événement obligeant ah. Papa Alé Niang dafa bëgg bind livre livre bi mu bind am na ñun ci tuumaal ni am na lu nu lekk muy bëgg xam nguur gu ñëw rek mu am ku bind livre ni diw lekk na lii diw lekk na lii waa loolu kañ lay dañ alaaj Papa Dieng <laughs> mu ngi am ay service de contrôle yoo xam ne dañuy def ay rapport te rapport yenn saa yi presse bi nga déjà rek bunt la boo xam ni dafay permettre ñi nga xam ne dañuy ci investigation ñu génne ci dara mhm. ndax rapport yi mooy génne scandale yi mhm. kenn demul ni diw def na scandale te tegoo ko fenn te tegoo naa ci rapport yi la xool am lu mu wax rapport yi nag jaadu naag jaaduwul dëgg laak dëgg la kii ko génne kii ko warul génne kooku c'est compliqué peut-être am na beneen niveau boo xam ne bu fa eggee ñu ko réglé suñu lanterne dina gën a leer mais pour le moment mhm. nañu fiyewu rek nii en général bu livre yu mel noonu amee dafay am foo xam ne fa la jógee day am source te source bi mooy euh, service de contrôle yi nga xam ne état bi daf ko teg sur place chaque année ñu def ay rapport yóbbu ko jox ko président Papa Alé tëddul di nelaw ñu jox ko jot ay affaire déedéet dafa def investigation dafa def investigation Papa Alé Cheikh lu ci sa xalaat xam nga élève Latif Coulibaly la Papa Alé Latif Coulibaly élève am la ah, ak ak ñaari moteur u Wade ya je te dis ah, ak euh, un opposant au pouvoir voilà Cheikh Cheikh nag fonctionnaire nga ah, yow waaw mais daal quoi cool cool rek comme nu ko papa yooyu waxee rek jàmm daal ci la lépp xaj. jàmm daal ci la lépp xaj. ñu def jàmm. ñu ñaan jàmm rek. ñaan jàmm ñu ñaan jàmm Malick. Euh, ah euh, ñu si mel ni cour euh, cour des comptes. lu mm-hmm. si mel ni inspecteur général d'État. Mm-hmm. ñooñu ay ndaw la. Mm-hmm. ñoom dañuy seet donc lu ñu dem ba ba keneen wax ko. Mhm. ah loolu tamit nañu seet rek lu baax lu. lu baax rek lu baax daal nañu def jàmm daal. jàmm waay Malick. c'est-à-dire tey damay jàpp ni man c'est République en danger. Mhm. parce que de Senghor à Abdou ba egg ci Ablaye Wade ba egg ci tey ci ci ci Macky Sall République dafa am nu muy doxe am na lu nga xam ne toujours daf daan am. mooy mhm. lii ñuy def nii. waaw mosut jóge musu fee jóge contrôle mhm. musu fee jóge càmbar musu fee jóge mais daawuñu ko étale sur la place publique ba ku mhm. nekk jot ci mhm. mooy li El Hadj Pape wax rek de rapport yu nga xam ne dafa am circuit bu mu war a jaar confidentialité daf ci war a am ñi ko war a càmbar càmbar ko ñi ci war a jël ay matuwaay jël ko mais tey lu ñu waxtaane ci bureau boo xëyee fekk ko ci mbedd mi waaw mais loolu tamit euh, dama la ciy tontu est xalaatoon ni loolu rapport yi ñu tegle bañ ko génne moo indi loolu ndax rapport bu 2015 2016 2017. ñetti at la ñuy tegle te génn ñu rapport xëy loolu. moo indi li nga xam ni génn na. moo moo waaw moo indi li moo moo indi li génn ça ça c'est vrai. mais le rapport dafa confidentiel. bien sûr oui de te. état dafa am confidentialité bu nga xamante ni bu ñu xottee warma jooju donc état bi dafay xaw a euh, dafay xaw a fragile dafay xaw a fragile les institutions yi nga xam ne ñoom ñooy càmbar loolu am na ku ñu war a rendre compte que ñu war a rendre compte bu ñu ko rendre compte am na décision yu mu war a jël mais bu ñu demee ba euh, tey jii teg les trois rapports trois rapports rapports yi nekk sur la place publique nga dem enquête préliminaire nga xëy suba ñu bind ko ci presse bi il y a problème. Mhm. jërëjëf mais man fi ma gënoon a kii sax mooy pour pourquoi ñuy wax ni diw jël na nangam ci alalu réew mi loolu dafay yàgg kilifa yi jël alalu réew mi loolu laa wax loolu mooy li nga xam ne daf fi yàgg. loolu tamit daf fi war a jóge. ndaxte nit ñi danoo sonn. Mhm. nit ñi danoo xiif. Mhm. nit ñi bu mënuñu la dénk seen alal. bis bu jot rek ñu ne diw moo sàcc diw. diw moo nga teg ci leneen corps de contrôle ils sont dans de bonnes conditions. ah ñoom ñuy contrôler affaire bi tut ils sont mis dans d' excellentes conditions. ah kon kay na leer Moustapha yow li ci sa xalaat. xalaat bi kat moom mooy man dama seetlu ne boo demee France boo demee Angleterre boo demee ci dëkk européen yi dix ans yu nekk benn ngay dégg yu xaw a mel noonu. te day doon lu doy waar sax. ay ay bu ñu ko doon lay weccit baag. un euro ba nangam tuuti. déclaration impôt mais Sénégal déclaration impôt foofa ñoom sax loolu la. mais jël ne daañit jël wala jël benn paaka buy jar mille francs nga jaay ko cinquante millions explique yooyu mooy détail Sénégal léegi lan moo loolu gàcce la ci Sénégalais comme yow ñu bokk suñu réew moom suñuy yëf ñëpp ñu bokk war ma séddoo ah non non dañuy waxante li am rek <laughs> dëgg la li ñu moom ñun yëpp bu ñu ko war a séddoo ku ne am sa part mu jaar ci yoon ku ne am sa lew gi yaram nga dund ko mu doon sa diine mais da koy jënd ko te xëy ñëw ba pare permettre ba pare gars yi topp sa ginnaaw ce qui est mooy ñii fii jiñ cojaanga ak yëpp rek dañuy ah, bari mbooloo topp sa ginnaaw bu ñu xëyee ñëpp topp leen tàccu bu ñu xëyee gars yi leen toxaanu surtout mbëri suñu mbokk mbëri sax di leen rogajeeru <laughs> te ñoom dañu fay ay centaine de millions yooyu dafa jëlee wax. pourquoi ñu topp ci ginnaaw gars yi. lépp loolu dama ne lan moo tax doomu aadama yi topp ci ginnaaw yeneen doomu aadama. leen jaamu leen tarbiyu parce que dañoo ne xaalis boo xamante ne du débat ah, say mbokk tiit ah. say mbokk dañuy sabar. dañuy sabar parce que kees ga euh, dinañ danaan tekki na jërëjëf Malick <laughs> jërëjëf jërëjëf tuuti rek laa ci bëggoon ku ne am am loo ci cof mais am naa mbégte Cheikh vraiment ah ni nga waxtaan bu neex wax nga feebaru làmb te foofoo la woon yaxu débat bi mooy écrit yu bari yi amalul benn njariñ bi mu baree la làmb yàq bu jëkkoon li nga ko waxee yafeek écrit Fass séeréer njàmbur pikin ah, waalo ñooñu ñu ñoo fi nekkoon. ak séeréer yi bien sûr. bien sûr bien sûr ñooñu ñoo fi nekk mais xoolal te làmb chaque dimanche da doon am lamb neex. mais léegi y' a plus de plusieurs fois. plusieurs fois y' de deux cent écuries. lamb di gën a daanu ñu am arène bu bees làmb di gën a daanu loolu dafa metti Malick encore une fois. merci lii taxoon ñu woola nga ñëw fi. lii rek la woon nga ñëw toog ñu waxtaan ndaxte am nga loo ci wax. ndaxte xam nga ko te yàgg nga ci. allier ñu ngi lay gërëm di gërëm Medoune bàyyi Niass Ndiaye ñu ngi koy gërëm le photographe ah di gërëm la producteur exécutif Mbaye Fall waaw ñu lay gërëm bu baax liggéey bi rafet na mbokk yi sunu sponsor yi ñu delluwaat ñu gërëm leen l'écran ah Blackpool Bisik ñu ngi leen di gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñoom la ñuy ànd ak ñoom di liggéey di gërëm la TFM ñëpp ci kaw ba ci suuf ñëpp gërëm nañ leen Alaaji Papa Dieng jërëjëf jërëjëf mustafa jërëjëf wala kàddu bu mujj. dama la bëggoon a. boo ñaanee ma eh, xaaral xaaral ma Asba Asba DTV ak Mbaalo ñoom ñaar ñu ngi nii waaw ñaar nii la mm. Asba mi ngi nii. i yow i Maawo kii moo gaañ. ci yàlla. non. Jalla Jalla loo wasal kama. je le connais. yal na ko yàlla. Maaw indi Alaaji Daawda Faal bokk. ah ñu ne lamb ñoom moom boo amul Alaaji Daawda Faal kon Mbaalo ak kii mi ngi noonu. waaw ma dafa ban. nga woon ñu doomam les deux rek ñu jaale ko. ban kàddu nga ci mën a dolli nga ne. kàddu may bu jàll mooy kàddu jaale ki nga xamante ne mooy sunu mag Daouda Fall. Ah, démb dañu yëngoon ca dëj ba. waaw. association des leaders dafa présence bu am solo. Mhm. association des sages dafa présence bu am solo. Mhm. les ménagères les promoteurs le monde de la lutte daje nañu fa. Mhm. vraiment à Daouda Fall. dañoo xamoon ci moom rek benn caractère. Mhm. mooy làmb su làmb jeexee kenn du ko. kenn doo ko dégg doo ko dégg sax. doo ko dégg ba bàyyi làmb it fa mu toog la toog. daana ñëw sax des fois. ca jamonoy Balla Gaye bi muy bëree ci début saison mhm. am. Double Less numéro 2 mi ngi moom la ñuy jaale baayam waaw moom xale bu yoru. bu baax toppoon ci tànk baayam ay baayam ndax moom dafa bari ay baayam moom moom Less 2. ñoom boole wala ay baayam lañu. te mu am respect. am coono wax dëgg dañ démb àddina la woon. xale bu yaru àddina la woon ñëpp fa daje ñoom Balla Gaye nga fa woon ata Gris Bordeaux jiite les luttes en activité ñoom Aj Birahim Ndiaye Amadou Kane Diop Mbaye Cissé tous ces anciens là ña nga foon toog ndax jëmm ji toog ak Balla ak daal daaw defal mi nga xamante ne moom lañ seqaloon àdduna donc daal aaj daaw defal daal suuf wala bañ ko denc yàlla oyof tooy ci kawam ko maanaam njëgën a yóbbul ko ci àjjana yi gën a kawe amin salaamaaleykum amin may gërëm sama mbokk yi nag waa ndaat yëpp ndaxte Birama ah ñoom Pape ñoom ñëpp kontaan nañu daal ndaxte dem ci say mbokk dafa neex te dañoo yàgg di wax gàmmu ndaat gàmmu mais maa ngi leen di yëgal nag boo bëggee gis gàmmu gu neex nag ah ndaat la ndaat ñoo ko yor géer ñu buur ya ñëppay ñëw ah suñuy géer parce que ñun suñuy géer ñoo bokk maam ñun ñun daanaka ay géer la ñu rek ah ay géer danoo def nii quoi dem fii dem fee xam nga mu doon affaire bu am solo waaw gërëm sama yenn raq yi xam ne dañuy émission bi te dëkk Medina parce que émission bi dañ koy suivre bu baax a baax sëñ Modou. ah waaw ak tamit euh, Diakha Cissé. Diakha sëñ Modou ma ne Baye Fall. Euh, së sëñ Modou ah, Baye Fall sëñ Modou waaw sëñ Modou waaw. ak Simon nga xam ni ñooñu émission bi dañu koy seetaan. Ah. Simon bu Balla Gaye waaw. Simon mais Médou Médina waxaloon naa leen fi naa. Diakha doomu Séga Cissé. waaw ah, Diakha doomu Séga Cissé. doomu Séga Cissé Diakha di sama doom. moo dugaloon bal ba ci kenn du Séga. du Séga def <laughs> moom la Masata dribble camp ba ci po. di bi paas ko ko mu dóor ko mu dugg. c'était en 67. lay waaw maa ngi koy fàttaliku. bu ma yëngal <laughs> yi kon ñu ngi am mbégte lool ah di leen jox rendez-vous mardi.